ci lël bi nga xamante ni amaloon nañ ko alxamis yemoo fukki fan ak benn eh, ci weeru janvier eh, jëwriñ bi gàlloo wàllum gu yaram ak action sociale eh, Marie Khemesse Ngom Ndiaye di naqarlu li nga xamante ni nag moom moo di yenn garab yiy manqué ci yooyee nag mu mel ni Omnipac ci la bokk loole nag moo di xabaar bi nga xamante ni nag depuis démb la fës ki gàlloo inspection pharmaceutique Euh, di ci indi leeral. ñun ñoo jël décision. produit boobu parce que dañu jot ay information yoo xam ni ci ñi koy utiliser ñoom ci ñoom la jógee ñu wax ne ne produit bi gannaaw bi ñu ko injecté nit ki. dafa am ay effet indésirable grave yoo xam ni dem na ba nga xam ni indi woon na yenn décès yi. ñun tañu ne du ñu xaar li ñuy def mooy jël produit boobu tënk ko ba nga xam ni kenn dootu ko mën jot. li ñu yóbbu quarantaine yooyu la injection. moo waral teg ko ay gët xaw a jafe wante nag pharmacie nationale d'approvisionnement dañ ko wutal ay palliatif maanaam yi nga xamante ni nag mën na kaa wutu. PNA nee na moom garab boobu moom am na benn similaire boo xam ni mook garab boobu ñu méngoo passé na commande boo xam ni. Euh, suba suba incha allah dina ñëw ci dëkk bi waaye dafa renforcer stock boobu par di dix mille autres flacons yoo xam ne daf ko def commande aérienne. boobule cargaison nag dina noppal ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi feebar itam ñi nga xamante nag ñoom ñoo gàlloo pharmacie bi ñëpp bokk wante nag du tee benn yoon. coow bi jëm ci wàllum jafe-jafe yi nga xamante nag boobule garab mën na kaa jur ak rapport yi nga xamante ne dinañ ko amal ndaxam dinañ ko fësal am déet coow loolu lépp daal di jóg. dinañ leeral lépp parce que ñun amuñu dara lu ñuy nëbb parce que ñun population bi lañ fi nekkalee su nekkee am na danger population yi moom du duñu du duñu am benn xarma yàlla pour jël décision yi nga xam ne dina leen mën a